combat ngi noonu avant spécial bi dox ci diggante Xàll Tali ak Bébé Talla Xàll Tali nag toj na benn nen léegi yàqu na cuuc dama ciy ànd ak xale bi jigéen bi nga xamante ni barki démb combat Alboury bi moom laa dégg mu yëngal ko ba mu yëngu fii ci jàmbaar news muy Siteu ak Ngoné Star dama koy bàyyi mu wéyal xam nga ñaari xale yi. Xàll Tali Bébé Talla yëmbal. Bébé Talla moom ngeen jàkkaar loolu moom moo jóge yëmbal xaali tali moo ngem boo ngeemu lu noir yi takk sengoor yu rouge yi moo wane ginnaaw ñoom ñaar seen taxawaay daa mel ni baax na waa seen taxawaay nag baax na mais problème bi mooy doole ci yax la du ci maas ñoom ñaar seen maas tolloo na mais est-ce que tolloon lañu doole loolu mooy question bi pour ñu tolloo doole wala nga xam ne tolloo nañ doole wala nga xam kopp doole ci nan nga koy xamee parce que nit ki mën naa sew te fekk ne am doole nit ki am yaram te fekk ne amul doole doole ci yax la mais ñaari mbër yi bu ñu songoowee di nga xam ñoom ñaar kan moo ci ëpp doole. mais Yawou Dial sew na mais amul doole de. non Yawou mais li ngeen ko teg du moom sew na amul doole mais dooleem maanaam faiblesse bi ngeen yaakaar moo nekk ci moom nekkul ci moom amul doole carrément mais am na doole. Mhm. mais ban moo gën a am ci làmb. man su ma doon noté damay naan ci li booy jóg doo mu yëmbal bi toujours gars yi dañuy naan njool mu sew la amul doole mais damay wax toujours fais attention nee naa ko njool mi bu tuuroo soow mi gàccoo reenu caxat bi. yenu njaq li képp ku mu jàkkaar lool da lay daan ndax gars yi dañ koo xeeb yaakaar ne ngeen la leen di daane te xale bi daa am doole te man xam naa ne daa am doole moo war a bëre jeex jaam mbawar mbawar bi la loolu Fallou Ndiaye moo ko fii lay doon le 10 juin incha allah mais le 11 juin tamit am na bu rëy de waaw diggante ki nga xam ne moo di Naaru Sokaas ak Liis Ndiago man combat boobu laay xaar ah. ndax kii di Naaru Sokaas daa daan Baba Jaxal

doomu yëmbal yëpp ñëw nañ tey gis naa fi ki nga xam ne moo di Diop 1 moom nga xam ne ci làmb booy Diop 2 lañ ko daan gis gis nañ fi ki nga xam ne mooy Naar Fall di seen coach Bébé Talla mépp na léegi dóor waaye dóoru ragal la xale yu jigéen noonu la ñuy xeexee dóor bi dalul xaal tali bàyyi leen suuf si. arbitre bi àtte na Malick Ngom la wax na dëgg nee na ñoom ñaar arbitre sifflé waat na ndeysaan diggante xaal ak Bébé Talla xaali moo wane ginnaaw Bébé Talla moom ngeen jàkkaar lool ndeysaan xaali ma ngay dóor di xool ba xam day nelaw wala yeewu na. <laughs> bu ko nag daa day xool ba xam day nelaw waaye kii di Bébé Talla nelawul mu ngi jàkkaarloog moom. ndeysaan Bébé Talla ak xaali tali. xaali xaw ma fu mu jëlee tur boobu. xaw ma ban tali la ñuy xàll waaye bébé Talla est-ce dina nangu ñu xàll tali. xàll tali dóor na bébé Talla deful benn réaction xàll tali mooy dirigé. sànq xàll tali sànq jël na avertissement loolu dañ koy tere daa naroon damm baaraam ba dañ koy tere. amoo droit téye amu ci benn droit. ñaata baaraam la war a téye. non non parce que bu fekkee ne war a bëri ak sa adversaire am nga droit jàpp loxoom loxo lañ wax parce que loxo a baaraam bokkul mais boo jàppee benn baaraam bi ça veut dire mel ni ku koy damm loolu règlement da koy tere. xaalu tali xaalu tali def léegi ci kaw bébé. loolu règlement da koy tere bébé taal daa mel ni na bébé taal dóor na léegi waaye dalul bébé taal ngeen jàkkaar loolu xaalu tali bébé taal dóor na waaye booy dóor da ngay xool. dóor daa am point booy door da ngay xool. yow mi ku jigéen ñi nga bëre est-ce que booy dóor di nee naa ko làmbu jigéen bu amoon may seen roi des arènes ndax damaa dégg galañ xaalu tali bébé taala. jóge ci combat bi ba tey. ndeysaan xaalu tali bébé taala xaalu tali dafa jàpp benn loxo bi moo tax bébé taala mënta xeex Bébé Talla Xaali Tali. ci combat ñoom ñaar. ndeysaan Xaali Tali kenn jàppagul sa ngemb moroom Bébé Talla daa jël loxoom bëgg a dóor ci suuf Bébé Talla Xaali Tali Bébé Talla daa mel ni jàpp na benn loxo benn loxoom jàpp na ngemb Xaali Tali ma ngay dóor. saan waaye nag mafia bi leen di topp moo tax nee naa ko xale yi ñooy feesal stade bu ñu jógee seeni population ñoom dañuy jóg. mbooloo bu takku moo leen di wan ginnaaw moo tax du ñu parax paraxee seeni i combat Tali jàpp na benn loxoom Bébé tamit jàpp na benn loxoom benn loxo jàpp benn loxo dóor <laughs> Xaali Tali. jàppee di xeex baax na ndeysaan ñoom ñaari xale yi Bébé Taala Xaali Tali ñu ngi ci combat bi ba tey ñaari xale yi ndengeñante na ku ci nekk jël na boppam teg ko ci mbagg morom bi ndeysaan ku ci nekk. sa loxo càmmoñ ki di bebe tala loxo jor bi amna ngem tali tamit aussi amna, ñom ñaar ñu ngi ci combat bi ba tey waaye ngeen sama jigen bi ndeysaan ni mu analyser lamb ji arbitre bi na kan mo dem ardo wala ken demul xàllu tali kay kay len bebe tala kay arbitre bi na de. tali Bébé Talla man su ma doon xool ñaar damay tali moo doole. parce que boo xoolee yaram bi moo gën a dagg bu dee entraînement mbër ay biceps sam moo gën a génn kon booy xool da ngay naan moom moo gën a nekk ci état. ndaysaan dégg nga ko sista ngonista nee na ndaysaan règlement bi ay yaram bi yi gën a dagg ndaysaan ak ay ñoom bi la dóor na léegi mais coup bi baaxul si manton bi la ko dóor coup bu ko dóor léegi xaalital yi na def attention bu ko dalaatee mën na kaawoo dóor boo baaxul bébé taala jàppante bi la gën a bëgg mais kii di xaali tali nag moom mayu ko ko ay sengoor la jàpp. ndeysaan ñu ngi noonu ci combat bi ba tey bébé taala xaali tali xeex na ñoom ñaar arbitre bi leen. star xale yaa ngi noonu dox ci diggante xaali tali ak. bébé taala. ak bébé taala ñoom ñaar dem nañ naani ndox ba noppi ñëwaat. dem nañ naa ni ndox ñëwaat mais kii di xaalitali na def nànk ndax instant bi Bébé bu doon ne day nelaw dama leen naan instant bi yeewu na. yeewu na. Mhm. ndeysaan xaalitali moo la wan ginnaaw ngemboo ngemb lu ñuul li am lu xonq li moom nga jàkkaar lool ndeysaan arbitre bi sifflé waat na ba jigéen rek man moom lu jigéen bokkul buguma ay ca waxam jigéen mooy lépp jigéen mooy yaay di. yonent ba def nga joxoon sa yaay ñetti yoon doo ko jox papa loolu du hasard. kon jigéen daal mooy lépp. mooy lépp. kon ñu naan damaa bëgg jigéen jaadu la. non yaay yooyu bëggal jigéen ba neex la mais na am fu yam nag. Ah, ah ah ah ah waaw baax na. daa ah, baax na fan la war a yem. non na am fu mu yam. ah ñoom ñaar ñu ngi ci combat bi ba tey. Bébé Talla ak Xallu Tali. Cissé Ngonista nee bëgg jigéen balu ay door na ko daw na daw na daw na. waay la ko kii daw na di. lii lan kii lu mu def nii. lii lan la kii daa almet di. góor war naa daw déedéet góor du daw. góor war naa bu jigéen sax jeex na. lu métti métti góor war naa daw man si sa ngonitaa du ma daw du ma dellu ginnaaw. est que war naa dellu eh bébé taala mi na lekk sama avance ñu bëri. waay la <laughs> yow ah, bébé daw na di. taala daw na est-ce que nekkul jinne la gis. ah dara. kubee jinne la gis. kubee dal xaalu <laughs> tali door na Bébé Taala daw ba mel ni latéral gauche buy dàq attaquant buy dàq latéral buy dàq attaquant laa illa la bokk ah. ah, ah. daw góor la bokk aha ma Taala daw ba dee ndeysaan ndeysaan Taala xaal tëli mais man li mu gis ba daw jaaxal na ma tuubee dal rek est-ce que lamb kese la lamb kese la <laughs> est-ce que xaal dal rek ay loli lii ñaaw. taw ah daw na taxaw de ñëwaat na risqué taxaw. non lii dafa ñaaw ndax kii di combat Albouri ak Diarra 2 Diarra 2 encaissé lu ne lu ne waaye taxul mu dellu ginnaaw kon góor waroo di dellu. Petit Lo boo ko gisee looy wax daa niru papa ji arabisant la au fond bu duggee ci géew bandi lay doon aka ma leen xam. walaay xam nga leen. topp nga leen ma leen nag topp nga ba mu sa sista golista wax na dëgg. ndaysaan lamba ngoog ndaysaan ñaari xale yaa ngi tali day dem naani ji meew. xaar day naani ji meew. naani meew. ndax naani meew nag xaloo si làmb la bokk làmb bu ñu nee CNG ne promoteur ne mbër ne journaliste ñii di joxe soow mi ci lañ bokk ndax CNG dañ leen di fay mbër dëgg balaa ngaa am kóllëre boo ñëwee ci làmb ñi nga jox ko moom it li moom mbër daa war di naaj ci. naani mooy naani soow damay bañ a publicité. Ah. <laughs> te xale dañoo wex xàtt mag mu ci deful fu la xale yi romb la. te moom nag peut-être daa am ci lu mu jógee xëy na victoire la wala défaite moo xam lan la mais instant bi làmb ji daa am fu mu ko teg ndax waa yëmbal gis nga leen dañoo def mobilisation ñëw kon moom làmb ji di ko fooyee waaye kii di xaala tali moom it daa soxla làmb ji Bébé Talla xaala tali. ña nga ca combat bi ba tey Bébé Talla nga doon dóor ay uppercut ci suuf ndeysaan waaye xaala tali tëru na ko rek ak loxo càmmoñ ba di déglu arbitre bi ngay wax ma ngay Bebetala tala xàll tali tëju na jege nañ ci saaku yi ñom ñaar faqat mu yeen xar nako ko laay laa nako na ko da ko weyele <laughs> da nga japp ci ngem bi ngi ba melni kuy rëcc rek nga weyele ko loolu moy nga dem ba koy ba koy ba koy te fàkkat bi ñorul wala nga dem ba diko ko te pad bi ñorul loolu lañuy naan da ko bëgg khalatali saaku yi ndaysan bëgg xal tali saaku yi xal tali arbitre bi 6666 fois. 6666 <laughs> fois. wala papa papa wàññil. arbitre bi a 6000 fois. <laughs> wàññi waatal ba 50 fois. ba papa. arbitre pour la troisième fois loolu doy na. fois. Ah. <laughs> arbitre pour la troisième fois. dox ci bébé ndeysaan ñu fin bi dëgg-dëgg waaye bébé Talla ak Xaali Tali ndeysaan bébé Talla Xaali Tali ñoom ñaar dañoo ñementewul ndax dóor yi dañuy xàcc xàcc ak dóor bokkul dóor da ngay jàkkaarloog nit ki boo xool point bi ngay dóor nga dóor mu dal mais ñoom ñaar dañuy xàcc lii ñuy def mooy raagu mbedd ñun xale jigéen ñi moom la ñuy xeexee ci mbedd kon dañoo war a bëri dañoo war xeex xeexu góor. dañoo war a xeex xeexu góor day dëgër. dox déclenché. ay comme Albouri ak Diarra li ñu def. keroog samp tànk yi. laay ndengeñ seen xeex suul tànk yi. loolu la ñu war a def ñu. wax nga dëgg amateur yi kontaan. mais mais ñett ñi. wala xeexu xeexu kaw ña nga xeex xeexu kaw. temps ba jeex na. match nul. lan la arbitre di wax match nul. match lay doon ah, lu arbitre di wax. ñaari punkal yu toll nii. ñoom ñaar waaw. match nul amu ci woon yoon. man bëgguma lii. yëkkati leen oh. man bëgg naa ci mbër boo xam ne da daan baa daan la. dangay naan wàccal sama kaw wala ñu wàcc sa kaw. mbër da takk suuf.